ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf xaalisu mbas mi caaxaan reesalu ko ubbi l'observateur ginnaaw rapport bi waa cour des comptes defoon ci fi ñu jaarale woon xaalis bu fond force covid 19 bi santoon ministère de la justice garde des sceaux mu ubbi ay information judiciaire jëmee ci fukki responsable yu rapport bi tuddoon ci jalgati waa di division investigation criminelle yi ñu dénkoon enquête ba l'observateur la bi ñu tënkali li tukkee ci seen enquête ba mat na ñeenti téeméeri kilo mbooleem daaj bu ñu joxat bi woon baaraamum tuuma ci xaalis ba fond force covid bi ak fournisseurs ñoom ñëpp auditionné nañu leen bu ñu ci jógee nag ci la ñuy jubli ci ministère de la santé ndax moom it jotoon na ci xaalisu fond force covid 19 bi lu toll ci juróom-benn fukki milliards contrôleurs yi seetlu woon ci ay jalgati ak i njuñ njaaj ñañu ci tuumal ñëpp alkaati yu diggi woolu leen ba déglu leen li leen jamono ji mooy buukale seenub enquête joxe seenub rapport ñi nga xam ne visé nañu leen ci mbiri l'observateur mi ngi ñuy xamal ñan ak ñan lañu Lamine Diallo la di comptable ba woon ci Kaffrine Ndiambe directeur fonds d'impulsion bu microfinance Aliou Sow bu ministère de la jeunesse Madeleine Suzanne Lo DAGE bu ministère du commerce Mouhamadou Bamba Amar aide comptable bu ministère développement industriel Ndeye Aminata Loum Ndiaye bu ministère développement industriel Djibi Diakhaté DAGE ba woon ci ministère de la famille Léon Zalé DAGE bu ministère communication culture ak Alassane Diallo mi ne woon DAGE ci ministère mine ca taabali procureur bi assemblée nationale sud du quotidien mi ngi ñuy xamal ne dañuy plénière tey ngir wax ci révision gi ñu bëgg ci constitution bi ak code de procédure pénale bi mbiri parrainage yeeg mbiri cour répression enrichissement illicite yéene bi nee nañu moom lañ fa war a waxtaane soleil national la ñuy coppite yi ñu bëgg ci code de procédure pénale bi su anto cour répression enrichissement illicite dafay tëb ñu indi li ñu naan parquet financier ñu tudde ko bés bu ñu war a dekkalaatee ñaari ndendekk yi mu di Karim Wade Khalifa Sall Sall meneen di Macky Sall njiitu réew mi ci mu njëkku réew mi quotidien journal bi mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw tukkeem bi moom Macky Sall ñibbisi na ci tukkeem bi démb war a jàmmaarloo ak coowal war tànnal waa Benno Bokk Yaakaar seen candidat bi ñuy xaar la nañu ci moom président Macky Sall ngi ci situation bu compliqué rax ci dool it tànn gi mu yeex ñu bari ci ñoom tàmbali nañoo buub seen i déeba déebaa déeb dajale seen i dëbës ak seen i di dem seen yoon li xew jamono ji ci biir Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien nee nañu wuute wut ak mbir muy jeex ne foronde yi tàmbali na ci seen biir démission yi tàmbali na ci seen biir xeexoo yi te tàmbali nañu ci seen biir docteur Abdou Khadre Sanogo di ñu wax ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne moom Macky Sall ci biir këram boyo mu séentu fa njaay yi doon amlante ak yoon fan yi yëpp bàyyi nañu leen démb vox populi di ko dëggal bay laaj ndax du bëgg indi ak dal ci réew mi ak wàññi fantasiro gi fi am moo tax ñu bàyyi leen ñu bàyyi leen te dem xooli journaliser ko fraude fiscale ak blanchiment d'argent ca France kii di jaaña njaay journal bi nee nañu ñoo ngi koy tudd ci mbiri Isabelle Adjani koppar yu toll ci un milliard trois cent millions nee nañu moom la jaaña njaay jox ndaw si di Isabelle Adjani